waaw loolu kay comme <laughs> ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp a constaté loolu euh, le nœud la guerre c'est c'est l'argent mm. te aujourd'hui bu ñu waxee football professionnel il faut effectivement club euh, bi dëgër financièrement ñu am xaalis nit mm. bi tamit am xaalis mais la fédération fédération mu ngi def lu mu mën fédération tey mu ngi def lu mu mën parce que boo xoolee la charpente le la pyramide du football sénégalais c'est là il y a on a tout énormément de clubs dans la fédération affiliés la fédération chaque année fédération mu ngi mu ngi def lu mu mu ngi def ay ay ay subventions aux clubs parce que le football c'est pas simplement aussi le football professionnel parce que boo waxee fédération aussi qui parle de du monde amateur. Mm-hmm. fédération mu ngi joxe et le club amateur et la ligue professionnelle même si euh, les gens pensent que bëriwul mais boo defee. somme somme euh, sommation ñaari kii euh, lu subventions yi yëpp ci te rends que c'est vraiment beaucoup d'argent que la fédération donne au club loolu beneen as benn aspe la beneen bi mooy lu modèle économique de nos clubs aujourd'hui il faut que ñu xalaataat suñu modèle économique mm-hmm. tey jii boo demee euh, modèle économique génération foot ute na ak par exemple modèle économique Duc ute na ak modèle économique Casa Sport ute ak modèle économique Jaraaf am na euh, club yoo xam ne seen président ñooy ñefe ñooy génne seen poste di joxe am na ñoo xam ne par système de partenariat am na ñoo xam ne am nañu as tuut ay ay partenaires euh, loolu lu tax parce que am na euh, benn aspect boo xam ne du ñu ko wax mais dafa nekk aspect boo xam ne bu important dans le milieu sportif c'est le le la le l'aspect audiovisuel c'est-à-dire les télévisuels, c'est-à-dire aujourd'hui les, les, droits télévisuels, aujourd'hui quand tu vas dans d'autres pays européens, tu vas en France, tu vas en, en Allemagne, tu vas ailleurs, en Angleterre, c'est un, c'est un aspect bon ramené, euh, à peu près 90% ou bien pour ne pas dire euh, dafa constituer loo xam ne pesanteur boo xam ne économique bu permettre club yi ak euh, ligue yi am doole financière mm-hmm. au Sénégal il y a pas c'est un aspect beneen bi Euh, c'est l'État tout à l'heure j'ai dit que état bi mu ngi ñëfee di di jàppale sport bi mais ça c'est dans les équipes nationales mais au niveau local les clubs c'est-à-dire aujourd'hui état waroon na am benn politique sportive boo xam ni tey naan sur le sur un plan de dix ans je vais accompagner les clubs sur dix ans à partir des dix ans je me retire laisser les clubs maintenant se débrouiller à eux-mêmes boobu c'est un système de financement boo xam ne parce que tey jii on est de on est un raccourci à l'État c'est-à-dire le monde professionnel est un raccourci à l'État c'est-à-dire aujourd'hui as tuut lu mu tuuti tuuti tuuti club bu nekk au moins am na à peu près trente cinq euh, cent cent employés et qui sont des des des qui impactent dans la vie des familles qui impactent dans la vie de de de tous les jours donc ce qui fait que euh, euh le programme de de de le de la jeunesse le kii la xëy ndaw si état bi dafa dafa waroon jàpp jàppandu si loolu jéem a financer ligue bi pour que ligue professionnelle bi mën a financer club bi.